Euh, dañu doon présenter album voyage c'est mon tout premier album ñu liggéey ko pendant des années bu ma juumul war na mat ay six ans ñu démarré quoi par les sons yu voilà ça nous a mené jusqu'ici quoi ñu dem ba tey voilà ñu jàpp ne daal jot na quoi ñu jàpp ne heure bi jot pour mu génn donc moom lañ doon doon wan mu album voyage voilà bon voyage moi comme je l'ai dit tantôt Rexy euh, point de presse du donc euh, ça ça fait plaisir quoi nous nous nous si Hood Boys mon ami d'enfance xam nga ay aïe ay ay aïe ay ay ay affaire quoi quoi xam nga sama tour mo nek ci affiche bi sama tour lañuy gis wala affaire yoy quoi mais y a toute une équipe derrière quoi te tey boo rek voilà amana di nga faté quoi di nga faté wa te li ma gën marqué affaire bi moy expérience bi amna arène bi amna ay ay ay wolof beat xam nga moy style beat nga xamante dañ koy mixer ak ak mbalax bi xam nga mais on utilise les instruments du mbalax mais c'est du hip hop mixé avec nos instruments traditionnels voilà donc euh, album bi dal diversité le déjà son bi daw ci suuf afro house la tu vois euh, si je me trompe je fais je fais je suis peut-être la première personne bu ko def Sénégal voilà donc voilà album bi la Ligue nañ ci le 21 juin bon comme on le dit rek xam nga tey jii ville de culture et d'histoire mais je pense que y a y a les artistes ici quoi